jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu ak ci wër wu tet bi nga xamni duggu nañ ci te di leen bal di ñaan yalla nañ ci duggé ci bismillahir rahmanir rahim ñu génnee ci alhamdullilah rabbil alamin tay dañ fi téwon fi ci way fekk fi mu production tegon lamb ji nga xamni mo doxon ci Moussa Ndoy ak Lac Rose duma ci sori kon damay baye jéey mu nuyu mbokk internet yi nuyu ko wa Sénégal alaykum Assalamualaikum Sulaiman, assalamualaikum waa TV maa leen di nuyu bu baax eh, di leen ñaanal jam, di leen wax bisimilahi rahmaani rahim ci weeru koor wi ñu dugg yep, ngi ñaanal sénégalais ak bep mbokku jullit di balu ñëpp ak, di bal ñëpp ak, ak di baluwaat ñëpp ak, eh, di bal ñëpp ak, di wak wer wi dugu, dugg lépp lu fi waay jaamu rek wala fi waay def rek yalla nako yalla yàlla nangu moom mi nga xamne man nañu nangul lepp yalla nañu yalla jéggal nangul ñu lepp ma ngi nuyu wa senegal di nuyu wa Touba di nuyu fama bok muy wa daru salam bu baax di nuyu waa way nak bu baaxa baaxa baax waaw jey dekk jéey way jey ñu xamone ko ci amateur ñu jek jek gis jey taxawal structure bu ñuy wax jey production naka la jey def ba taxawal structure bobu Bawal lañu dekk joge Bawal jaar fu melni Medina jaar ci ay loxo. loxo yi nu jaar ci loxo Amet Dieng loxo ama jaar marché ti leen mhm. kon a xam na ne Amet Dieng da doon tëgg làmb kon faw ñu bëgg làmb nekk amateur boo xam ne nii mhm. depuis xaw na diir tuuti ñu seetaan làmb bëgg làmb trop bi nga xamee ne ñëw nañu fii nag géejewaay mhm. defe suñu baas ñu dem ba ci biir doon jàppale ay mbër mbër yu bari jàppale nañ leen ñu wax ne di jàppale mbër yi est-ce que benn structure di leen tëggal ay làmb gënul yomb ñu xool ne àdduna noonu la ñu ubbi benn structure jiital ci ay nit bokk ko ak ñoom ñu di ci liggéey de passage ñu ngi nuyu di leen baalu ak ñoom ñëpp ci bokk Abdoulahat Mamor ku ci mel ni ñoom Fàllu ak ñeneen xam nga ak sama jarbaat yi sama doom yi ko ko bokkal ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax di leen baalu ak ci weeru koor bi parce que tele bi anti yi dañuy may occasion pour ñu baaluwaale ak sénégalais yi moo tax ñu ko def loolu foofu la Dieye Production jógee ñu xool ba tuddee ko Dieye Production waaw waaw bu ñu dellu siwee ci journée bi nga xam ne dañ ko génn ci dimanche bi ñu génn te monde de la lutte kenn dootu ko fàtteeti muy sukkaru koor gu neex googu man noonu laa ko tuddee gis nañu combat bi dafa xaw a yàgg dañ ko tëggee war na mat ci ginnaaw ñaari at mais yàlla moo def benn mbër mi amoon ndog ndog mm. waroon faju kenn ki sax muy Moussa Ndoye jotoon nay teg pression teg pression pour ñu changer ko adversaire wala ñu libéré ko beneen promoteur jël ko bon dañuy laaj pour kii pression boobu naka nga def ba gérer ko daal loolu naqariwut a seere parce que ñaar ñeñ ko seqal ñëpp d'abord ñuy lagros euh, di ko masawu li ko dalan comme li nga wax noonu ci ndog-ndog bi bi yàlla dogalee mu dikkaat mu nekk itam nit ku gore ku am coloré nangu eggale contrat am ñu ko ci saluer bu baax moom ak euh, ay mbokkam ak staffam te xam ne vraiment waa fas du ñu cuune parce que depuis affaire bi di am rek Euh, vraiment xam nañ ñu ko seqal te ñun itam xam nañ ko ñu ko seqal Moussa Ndoye itam comme yooyu mu doon def noonu di wax ci télé yi du kii xañ na nekk woon kii yam mais dem na ba si biir mu jéggalu ko toog ba xam na ne contrat moo ko tënk nu ñu ko libéré ba ñu toog di signé contrat bi dafa taxaw ma xaalis jox kon man mi nga xam ne ma maa joxe sama xaalis bu ma waxatul kenn warul wax kon buy taxaw naan nañ ko sensé ab anam tey jeex na mm-hmm. luñ fi waxati tey du jeex na tàkk kon àdduna noonu kese lay doxe dara jarul yàkkamte loo seq sa moroomi gor bu ñu la gën a gore loolu daal maa ngi la ko ciy wax combat bi li muy yàgg-yàgg yaakaar naa kenn mësuma dikk micro dégg ma ma wax wala dégg ma ma dugg ci beneen débat wala leneen lu dul toujours rek ma di di ñaanal eggale leen parce que boo gisee ñu tax ñun ñu tëgg leen monde daal ñoo leen soxla woon yàlla dogal mu jaar ci suñ loxo euh, ñu ne ñaar ñi boo leen tëggee dafay nekk luy ouverture làmb la te yaakaar naa bi ñu tàqale koo fi mu toll nii nekk na ouverture làmb bu am solo yéen kenn gënu leen ko xam. waa ci loolu euh, làmb ji ba tey gis nañ ni bon ñëpp ñu ngi doon xalaat ni stade Diop Iba Mar est-ce que dina attan làmb ji bon ñu gis ngay doomu géejawaay tamit jege stade Amadou bari lool ñu bëri bëggoon nañ ñu tëgg ko stade Amadou bari mais bon finalement stade Iba Mar daal dañ mujj confirmer te fa lañ ko amalee. ñu gis ni làmb ji mel nag stade bi feesoon na ñeneen ñu ngi doon tiit sax ba naan panain bi est-ce que bu ñëwee dina am fu mu toog ndax nit ñi dañoo bëri woon ñuy laaj bon ba xam ci diggante bi bi làmb ji jàlleeg léegi am nga ci satisfaction wala boog am nga ci ay regret yoo xam ne yaa ngi koy def ci li nga ko dalalee foofu amuñu ci benn regretté li nga xam ne moo ko waral nag mu ci wàllum stade bi xaj na ci xaju ci wàllum structure bu fi aman la mooy dem Demba Diop lañ ko war na tëggee biñ ko waree tëggee ba Diop ñu xool Demba Diop yàlla am dogal bu ci am ci diggante bi si dogal bi amee ñu toog Dieye Production nekkul man kese mm-hmm. ay nit yu ci nekk ay journaliste ay avocat mm-hmm. ay ay magistrat ay leneen yu nekk ci ñun ñu toog ñu waxtaan mm-hmm. parce que àdduna moom foo xasee génn million rek million ku ne xam na ne meloo woon nii lu tudd kon soo xasee génn million rek da koy bokk ak ay nit rek am foo ko teg su ñu génnee lu mel noonu di ko def waxtaan ci ak ñu war a waxtaan ñoom ñu wax de fii moo leen gënal fii la ñu bëgg mais ki nga andal te muy liggéey te mu am yene am xol bu rafet ñu ne fi lañ bëgg lan ngay def man da pour man lañ wax lool ngay def làmb itam beneen bi ci des kenn du ko tëggee ci fi la dëkk dëkk way stade Amadou bari ne fi kenn defaru ko ni ko mu du teggu kay lamb ma ñew teggu fi lamb mais koku yéen sax kon xam na ne boobaa cuune lay nekk loolu laa ñew gis nañ ni pap chalis doomu way la te bi mu tuddé teggu lamb mu doxon ci digënté Tapha ak Yékini Junior mu tuddé ko doomu way aussi ci stade amadou bari lako ko tëggee waaw yaakaar naa ya amadou bari lako ko mais est ce que gisaat nga fi kenen ku ñëwaat tëgg si géejawaay gisaat voilà way ñun duñ fi ki di fi seetaan nawetaan di fi jouer lenen di fi seetaan lu lu xew ci estat bi estat bi nga xam bo fi tollo fo tollu nit bo bëggee seetaan ci état ci sax ngay yët seetaan kon xana duma jël lu toll ni lagros Rose war ko jox sénégalais yi ñu kontaan ci ma jël diko diko tek estat amadou bari non dama leen koy yóbbul Iba Mar nga xam ne moo gën a neex seetaane làmb est-ce que xam nga Iba Mar moo gën a neex sax Demba Diop dañ koy wax parce que ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu demee la ni mu bindaloo boo fay seetaan làmb da ngay am amuru làmb da ngay tiim lépp di gis lépp kontaan keroog bi ñu fa jógee ba léegi yaakaar naa làmb yëpp moom la ñuy waxtaane kon jox nañ Sénégalais yi li ñu bëggan mënoo leen a defal mënoo laaj na laaj li ñu bëgg ba pare te doo leen jox li ñu bëgg loolu moo tax ñu waxtaan ci biñ ciy dem waxtaan nañ ci xam nga ak ku mel ñom Bekay mbay ñom Ngañ jañ abdoulat waxtana ci ñëpp ñu def lolu waxtan ci ak staff bi bu baax ñu and ci dem tëgg ko géej way am ci réussite total kon ñu ngi sant yalla bu baax ci côté bob mhm. ba tey ci euh, jógeekuñ ci lamb ji. wax nga ko tong ci plateau sant nga wa Sénégal gi yëpp sant ñi ngay liggéeyal yëpp ñu gis ni bo ci plateau bi bi fa Moussa ndoy toogee bi nga toogee wax na ni jey dama la mere. mais bañu ñu altiné altine gis nañ ñëpp sorti bu mu def ci presse bi wax ni jey da koo bokom ak ay mbokam jaxase ko ak staffam jaxase ko aussi ak ay serignam yu yu ko don ñaanal ci cachet bi nga déclarer mom nga ko fay parce que da nga wax ni da nga ko fay 20 millions te it genwal gi sax matu ko ma ne laaj yow loolu tontu. dindi tuma la wax. wedd wedd dindi wul tuma allah kulli ali man ak mom dinañ tok mhm. dañ tok te dañ waxtaan. dama la non sax bëgguma ci waxtaan. parce que man sénégalais yi xam nañ ma xam naa nit ñi itam moom li ma ko mën a wax rek na xool fenn foo xam ne nii man waxe naa fa dara wala sama staff waxee na fa lu mel noonu bu ko waxee na ko génne te incha allah li nga xam ne moom la ñu may ak li nga xam ne moom la àdduna bi di xaar moom dañ ko topp moom ba fi mu jëlee wax bi dina ko génne dina ko génne ñu xool ba xam kan ma wax loolu ak loolu lan lañ ci war a def parce que man pour man de loolu amut. pour yow déclaration boobu. non déclaration bi mu def yëpp amut Moussa dafa dëpp wax ji nee na seen kër dafa taax mu am situation mu di ma woo téléphone jotuma lool la wax Abdoulahat mhm. leen neexee ngeen dem ci Abdoulahat mu jël interview mhm. mu di ma woo téléphone jotuma kii expliqué wala nanga ak yooyu mhm. man je ne sais comprendre ma sax mais nit ku moom téléphone am wala man làmb ji man du ma man du ma wax ak mbër. du ma def ak mbër dara du ma wax ak ñoom tous dama am ménageur boo xam ne ni lépp moo ko seere studio production man d' abord moom bëri na ba pare ba bërki démb bi ñuy réglé lamb Moussa Ndoye billaahi wallahi watallaahi ak Serigne Salim Mbacke ma yaakaar ak Daaru Salaam mi nga xam ne moom laa yaakaar laay door a laaj Abdoulaye ñaat la fay Moussa man sama bopp li ma la wax su amul weeru koor yàlla bu ma ko yeexal bu ñu dégloo say kàddu yow amul benn journal boo taxaw wala boo ni télé boo taxaw ni fay naa temps Moussa Ndoye képp koo xam ne nii Moussa Ndoye bu ko génnee ma ko fayal ma dubleel ko may ko ko man maa la wax loolu man Modou Dieye Sène euh, dama ciy dellu moom journal boo xëy wax naa fa loolu wala loo wan wax naa ko kooku bindal ko ko mu ñëw ñu confirmer ko hmm. bu ñëwee wóor na Serigne Salim Mbacke mi ma yaakaar hmm. ak maam Cheikh Anta Mbacke borom dërëm ngërëm ma jox ko li mu soxla hmm. man man maa la wax loolu kon mu lay wax ne ayu wax yëpp ay wax la yoo xam ne dara du ci dëgg waaw. loolu mooy version production ci loolu nga xam ni mooy Moussa Ndoye wax na ko kon bon Dieye dañuy wax ci seen association mooy association promoteurs yi. gis nañ leen ngeen ànd ak Matar Ba gars yi bëri ni as promoteurs yi dañoo jegeyoo ak Matar Ba ànd ak ngeen ak moom visiter arène bi jegeyoo boobu Dieye pour pourquoi loolu. Ah, d' abord loolu am na solo d' abord dama sama collègue yi mbokk promoteur yep di leen balu ak ci wéru koor bi ñu nekk bu baax ñoom parce que maa ja xewle yaakaar naa ngi leen di balu ak di rafet lu seen taxawaay ci man ak seen taxawaay ci yeneen jiital ci suñu président Pape Abdou Fall gàcce ngalaama parce que dañuy faral di wax ne booloo bu amee rek ka aye moo kon moom ayam moo neex mais ñun ñi ko topp itam and ci ak ñom yaakar na ñun ñoo liggéey liggéey bi parce que affaire bi ñu koy défar fondement bi ci man mi la joggé Sénégal promoteur yépp dajalo nañ wuñu mais man ma indi promoteur jubo ma tok waxtane ko ak ñom défé ko ak ñoom wëlbatiku ñu def programme ñu luyé ben hôtel ñu dajé fa tok waxtaan xol suñu président fal Pa Abdou Fall bañ ko falé ba légui nak vraiment euh, ci li ñu bëgg rek ci loolu la nekk ci luy doxal làmb luy doxal sport lu am solo loo xam yaakaar naa kenn du ko gis accam eh, lépp loo xam ne ni daf ñuy may jàmm dafay indi làmb njariñ mu ngi koy doxal ak beneen côté kon ñu koy saluer bu baax di saluer suñu mbokk promoteurs yëpp nag bàyyiwuñ kenn ah nit nag dañuy wax ne ndaw bu matee la mu doon te ko koy yónni fonk ko parce que Matar Ba maa ngi koy nuyu di nuyu président de la muy Macky Sall dara nit ñi Sénégalais ñaata Sénégalais 17 millions la Sénégalais yi nekk fi mu toll nii ci lim bi ñu wax. Mm, waaw léegi benn nit lañ ci tànn muy Matar Ba. Mm-hmm. ministre des na ko yaa ñu doy. Mm-hmm. yow lañ dénk sport bi mm-hmm. ñaata sportif moo nekk Sénégal ñëpp Matar Ba moo leen jiito kon Matar Ba bu yaatalee gis nga niñ mel ci moom ñëpp ñu nekk milieu sport bi noonu noonu la ñu noonu noonu la yaatale ñeneen kon bu ñu ñëwee. ba yàlla dogal loo xam ne ni Sénégal yi depuis ci suñu maam yi ñu ngi koy jooy mu neexe ci ay ayu Macky Sall mu dig ñu arène nationale def ci trente deux milliards ub euh, defal ñu euh, kii bi programme bi euh, pose première pierre bi ñu fekke ko ñu ñëw encore ñu toog ba arène bi ñu fondement ko ba tabax ko ba daanaka la ci des bareetul ba finition moo fa des Matar Ba woo ñu ne ñu doomu ndey kaay leen ñu dem visiter arène national parce que li ñu kon ñun tam dañuy sawar pour dem delloo leen njukkal ñoom ñoom président ñoom gouvernement bi yëpp ñu delloo leen njukkal mais gàcce nga la ma ñaata ministère des moo fi jaar amuñu lu Matar Ba am kon nañu wax gàcce nga Matar Ba yaatal na boo gisee li fi jaar ci làmb yëpp wala li fi jaar ci keneen koo wax rek Matar Ba dina la ngeen waxtaan te bu ngeen waxtaanee déggoo kon ministère des bu ñu dénk lu mu mérité la ñun ñu ngi ko ci saluer bu baax ak ñeneen ñu ci bokkal kon bu ñu wooyee ñu dem seetaan ñun de suñu xol sedd na li ñu président defal ci arène bi dañu ñaan yàlla ñu fekke ko ba inauguré ko ba defal ko moom itam li nga xam ne moom la bëgg mooy bépp mbër buy takka ngi am rek ñu tëgg la ci arène bi incha allah. Dieye dañ lay laaj sa xalaat ci actualité làmb ji gis nañ ni benn collectif juddu na fi collectif des lutteurs xam association des lutteurs en activité am na fi mais bii dañ ne collectif des lutteurs. ñoom Double Less ak ñoom Mbaye Guèye ñëpp ngi ci biir ak ñi bàyyi bëre ñëpp a ngi ci biir laax lan ñoom ak CNG bi gis nañu ñoom ak CNG bi temps yi daal tàng na trop trop trop ñu lay laaj loolu lan moo ci sa xalaat ji. ah euh, am na ci xalaat parce que dañ ku bokk ci gétt gi naan ci meew bi waaw ku bokk ci gétt gi naan ci meew bi ñii am na lu leen naqari ñii am na ci lu ñu nekk ñuy kaas seen droit xam nga dañ ne seen droit la ñuy mais bu ñuy kaas seen droit nañu xam fi ñu war a jaar xam li ñu war a def ak nan lañ koy defee euh, comme d'abord ñoom kaas nañ seen droit ñi ko war a dégg dégg nañu ko woo nañ leen fi ñu war a waxtaan nañ dem nañu fa ñoom ñu ngi waxtaan ñu ngi leen di xaarloo ñoom ñu ngi xaar di waxtaan kon nañ leen bàyyi ñu waxtaan mais ma leen di yëgal ne CNG bu leen nekkee di kii nañu toog ak CNG waxtaan ak CNG itam parce que dégg naa ci ay mbir yoo xam ñu wax CNG jóge fi noonu mais CNG bu fi jógee ñoom kan la ñu fi indil xanaa duñ ñu wax ne ay mbër moo ñuy jiital ci làmb ji fédération moo ñu wax mais fédération ci ban côté est-ce que ma xama ma xama la ne mënu fa jaar di ko toj ndax dafa yaatu fédération bu ñëwee day gën a metti waaw parce que lutteurs yi fédération boo déggee fédération bu dee football bi bu dee football bi onze joueurs ñooy ñooy ñooy dem ci terrain bi bu ñuy def prime ñoom ñëpp ñooy bokk prime wala mais lutteur benn lutteur la te fii mbër yi nga fi gis ñëpp su mbër mi commencé di bëre cent mille francs bu commencé egg ay million staff ba bari bu staff ba bari lan nga cay gis looy gis pour te di pour kii bi jot ko sax problème la seen écrit da ngay fii gis mbër boo xëy da ngay wax ak moom mais staff bi lay wax mais staff bi dafa sori mm-hmm. ay dañ jëli ay nit yu nekk foo xam ne nii sax xamuñu leen woon sax wala leneen ak yooyu nekk ci làmb kon CNG daf leen encadré indi ci làmb lu bari man fekke naa ci làmb loo xam ne nii comme par exemple suñ la ko waxee sax da nga naan non est-ce que lii amoon na ci làmb mais làmb léegi gisatoo léegi làmb ci biir géew bekki naaw naaw yi di naaw gisatoo jaasi génn gisatoo paaka jënd génn gisatoo dara ndax lan ndax CNG CNG teg na promoteur ti yoon teg na manager ci yoon teg na lutteur ci yoon teg organisateur ci yoon lépp CNG teg na ko ci yoon mais bu fekké affaireu dag lañuy wax li leen di dag 15% wala 8% dafa bari mais nañu tok waxtané ko ndax aduna lepp waxtané la parce que lool nak buñ koy waxtané ñoma ah, man ci sama xel bu gatt ma ngi leen di yeggu mais dañu wara a jaar seen menacer ñu waxtaan ak seen menacer ñu àndandoo dem seen see toog ne leen ñun ko li ak li ak li ak li ñu waxtané ko buñu waxtané dal lu mëna xew parce que lu mu metti metti coow yi nga doon dégg ak yeneen yi nga ki wañé ko na fan yi ci waxtaan rek lañuy mujjé buñu waxtané lepp waxtaanee man pour man dal nañu dal te tey te waxtaan. waa ci ci ci coow loolu ba tey ah, parce que tamit seet nañ ne mbër yi ñoo ko mujjee mais promoteurs yi yéen tamit yéen a ko njëkkee woon parce que bu ñu delluwee 3 ans 4 ans ci ginnaaw promoteurs yi dañ doon kaas fii licence yi dafa cher xam nga droit d'organisation bi dafa diis il faut CNG wàññeel ñu ko xam nga ati mujj yi daal dañoo seetlu ni promoteurs yi kaasutuñ dara dara xamu nu mu demee noonu xaw ma dañ la naa woyofal oyof euh, am solo trop.

bi ñu booloo ñun ñëpp dem toog bi ñu demee toog mais dafa wàññi licence licence promoteur dafa wàññi organisateur promoteur ak leneen ak sart yu bari ñu teggil ñu ko mais kon waxtaan indi lool moo tax promoteur bu doon coow bàyyi na coow amatul dara lu muy wax lu gàttee nga laa ma CNG dañ leen delloo njukkal te xam ne ku yokkul yaa wàññi moom dañoo yokk non ci say biir wax dégg naa léegi nga ni licence cinq cent mille la woon dañ ko wàññi kon dafa mel ni affaire dafa am poids parce que tamit euh, bu ñu dégloo sunu papa Boy Kairé ñu ngi koy nuyu au passage li mu mujjee wax ni ci jubilé Baboy bi d'ailleurs moom dafa ni Baboy dañ koo daggloo licence licence bi 800000 la pour licence lutte avec frappe licence simple moom sax moom Boy Kairé bi muy organiser jubiléem simple la mujj def gis nañu simple la def nee na 300000 la daggee woon bon. xam nga licence dafa am deux catégories. Mhm. licence simple. Mhm. ak licence frappe. Mhm. licence frappe. bu saison bi door a tijji buy door door a tijji trois cent mille francs lay jënd lay lay jar boo demee bu yokkoo ay quelques mois ñu yokk ko def ko yaakaar naa beneen prix su yokk yokkuwaatee ba egg ci beneen mois bi ñu yokkaat ko encore ci beneen prix parce que xam nga lu waral CNCR di def lu mel noonu mais limite promoteur yi ci benn côté am na foo xay sax bu fa eggee boo ñëwee jënd licence duñu la jaay parce que amatul mais ñi mais mooy yoon mooy yoon parce que euh, licence bi. man de trois cent mille laa jënde te xam naa ne boo compté woon quatre vingt dix neuf pour cent ci trois cent mille lañ jënde ñoo njëkk a jënd. ñoo mais ñoom wax nañ leen date bi mu yem ak fi nga xam ne fa la ñu yem. Mhm. tey fi mu toll nii mbëri am na mbëri yoo xam ne amuñu woon renouveler leen seen licence. Mhm. mais duñu renouveler seen licence parce que date bi jot na bu date bi passé mënatoo ko renouveler non loolu moo si nekk. ñëwaatu Gaston Mbengue ci làmb ji luñ ci mën a wax. sénégalais yépp ñoo mas a ñoo taxaw di demander Gaston pour mu ñëwaat ci lamb kon bu tonto Gas jëlé ben initiative xey da fay ñëwaat ci lamb ba nopi ñëwaat ci lamb xàccee fu ko kenn yaakaaru won mu tëgg ko kon dañ koy saluer diko ñaanal jamm mu ko vraiment daf ñu ñun ñi nga xamné ne ñoo nekk ay xalé nek ci lamb ji fekkan ko ci mu di ñu digal dem bàyyi ci yam war fekkan ñu ci vraiment ba légui dañ ci kontaan rek dañ ko nane père acca bienvenue lu rafet la kontaan bu baax. waa làmb ji ku gis Dieye gis Abdoulaye Ndiaye wala nga gis Lirou Diane. Hmm. fan yee ci ginnaaw seetaan nañ benn émission boo xam ne Lirou Diane lañ fa invité woon bon Dieye dugg woote ni yéen Khadim Ndiaye yow mi toog foofu ak euh, kàddu gi bëre leen Lirou Diane ku bëre Lirou Diane di nga am combat. ku ci bërewul Lirou Diane nag ma dem seeti ma Mandione wala ma xooli keneen. Hmm. ci saa si Baye Mandione daal di dugg. pétard de ko ne xam nga nii jéy bu bëggee lu mu tëgg ndax du xam nga li mu wax daal du ma sànni daal <laughs> looy tontu ci loolu mais xam nga loolu boobu ba léegi wax non non non non xam man du ma ci wax euh, dama respecté Sénégalais yi bu baax jox leen seen cër te ku respecté wul nit ñi rek doo respecté sa bopp ku respecté koo dégg mu naan dama respecté nit da ngaa respecté sa bopp man du wax dara luy débattre su ma waxee dara luy débattre damay ci sens damay jéggalu ñëpp Abdoulahat du làmb sama doomu nday la sama xarit la alors li ñu seq sax mu upp lamb ñu ñi yaakaar ne lamb rek lañu ñu seq lépp loo xam ne ni yor naa ko rek am naa ci moom confiance pour wóolu ko koo dénk man dama ñeme sama nit ku may àndal te doo jariñ ci man damay ñaan yàlla bul ànd ak man man noonu lay dundee depuis ma nekk xale ba léegi depuis ma nekk xale ba léegi képp ku may àndal rek da ngay jariñoo ci man may jariñoo ci yow kon Abdoulaat bu ñëwee ma dénk ko li ma ko dénk mot ko mot a dénk dama koy saluer bu baaxa dama koy sant bu baax parce que li ma ko dénk yëpp mu koy dox ci li ñu ànd yëpp ci ngor ak ak sutura ak teraanga mu ngi koy def kon kooku sama doomu ndey la kon fu ma waxee dama koy tudd mënu ma ko ñàkk tudd lu ma soxla fu ma ko soxla ak fu ma mën nekk mu fekk ma fa kon kooku sama waay la liiru jaan kenn du ko wax sama diggante ak moom mais booy booy wax combat am ak Baye Mandione yow it. non Lirou Diane mën na bëre keneen sax ku dul Baye Mandione ku gën a sax tegu Baye Mandione ci temps bi. Mhm. Lirou Diane dara jomb ko. kan mooy sa patron Dieye. Mhm. man mi mën naa lu ne. ci côté boobu mën naa ko wutal adversaire bu ne bu dul Baye Mandione. loolu boo ko waxee dama ko assumer bu baax. Mhm. mën naa ko utal ku ne. Lirou yaakaar nga ni Lirou Diane ak Baye Mandione combat war nga ko mën a sëgg. Diane mën na bëree sax ku raw Baye Mandione ngemb li tax ma wax ko xaadim sama waay la kàdd gi sama xarit la liiru sama xarit la mm-hmm. nee naa leen liiru mooy sensé bi ah. képp koo xay bëgg nga xaalis mm-hmm. ñëwal bëreeg liiru d'abord ñoom ku ci bëreewut ak doo bëre képp koo xam ne bëgg nga xaalis ñëwal bëreeg liiru ku ci bëreewul ak liiru doo bëre moo ko wax ah. euh, Xarim Ndiaye bi mu jógee ci liiru kan la bëree laat liiru bi mu jógee waate ci liiru kan kan la bëree laat amul combat kàddu gi bi ñu ko waxee kay bëreeg liiru ñoom la d'abord ñoom ñooñu ku ci bëgg a bërewaat day ñëwaat ci liiru. kon liiru mo yor affaire non liru ko yor parce ñom ñëpp man na leen jappalé liiru moko yor. ku ci bëgg dara ñëwul bërek liiru lool kay dama ci wax liiru sama xarit la. Hmm. man man naa ne mbeur yëpp bu ñuy xol man liiru yaan moy sama mbeur moy sama mbeur fidèle bu baax. mom hmm. lay tiitaroo moy sama nit. lool nako nyep ñëpp xam ndax luma soxla mo ci gaaw luma bëgg mom la ci d'abord fo ma gis sax gis ma gis rek bo xolé ci ginaaw liru nga ci ginaaw kon mbokki internet yi yéen yi nga xam ne yéen ñuy suivre ci youtube bi bu ngeen duggee bu leen fàttee abonné ay yeneen vidéo yi am solo mu ngi leen di xaar wala ci page facebook bi Hann TV euh, jéy ñu woyal waxtaan bi ñëw ci euh, arène nationale bi nee nañu déwén war naa mën a ubbi saison bi sax nee nañ am na combat yoo xam normalement war na ko ci mën a terminer ñu bëree ko foofu léegi ñun dañuy lay laaj ba xam yow am nga projet grand combat boo xam ni war nga ko mën a yóbbu ci arène nationale bi nga xam ni ñu la maam am nga projet yaa ngi ci projet yooyu. waaw bu baax. ndax man sama kàddu ko koy dégg ku ne xam ne boo yokkul wàññi la kon arène nationale président dañu tabaxal benn arène nationale def si trent deux milliards mbër yi nekk fi te amuñu kii pour tëgg ko bañ am nañ ko bu baax man ça dépend ñi ma nekkal lu ñu lu ñu d' accord d' accord naa ko mbër yi amul combat bu ñu xëyoon suba ne dañuy taxawal yooyu pare naa pour ñu taxawal yëpp. boo demoon seeti Abdoulaye wala tey fi mu toll nii ñoom ñi nga xam ne ñoo seq jëy production lu ñu pare pour taxawal ma taxawal ko ça dépend kay ci ñoom xëy na ñoom ñu bañ a bëgg waaye lu ñu bëgg ma def loolu daal laa ci mën a ci côté boobu ah arène bu ñu ko tijjee ci saison bi am am nañu ci kii kon nañ ci sant yàlla parce que am naa ay mbër yu war a bëree double moteur maam Balla mu ngi fi booy ñàgg tafaleer mu ngi fi boo ñàgg yaakaar naa ku ne seetaan na ko ful bi muy derene di ko indi nga xam ne bu jógee euh, Kajoor kenn du des mm-hmm. Tafaleer bu jógee Bawol kenn du des mm-hmm. kon nan la ñuy def double moteur bu jógee mm-hmm. Rëbës ak Ndakaaru kenn du des Maam Balla bu jógee Pikine ak Géejawaay ak feneen kenn du des kon buñ ko tëggee arène nationale suñu jàmm waxuñu dañ ko fay tëgg de Iba Mar lañ ko régulariser fa lañ ko bëgg a mais bu fekkee arène bi tijjee ci diggante bi nag ñoom ñu bëgg ko ñu permettre na ko ñu yóbbu ko fa rek ngir bëggal Sénégalais ñun daal dara dara kiiwuñ ci lu bëggal Sénégalais yi ba ñu kontaan ñun sénégalais yi contane rek mo ñu yëkkati jàppale nit ñi ñu bëré parce que lamb dañ melisine dafa metti metti na mais li ci nekk bari ni ci jariño dafa bari bala nga koy xam rek nga tëgg lamb euh, dama lay ñaan yow bu nit lamb ba pare fi tëgg lamb ba pare dess ci stade bi dama nga top ko nga xol ko fof ngay dooro xam lan moy jariñu lamb waaw. nañ fi Rocky Balboa bi mu ñëwé dak licence am ni day Bombardier daf ko bañ xam nga comme bañ na ko ci mbeuri est ce que tamit waru ko won bañ ci promoteur yi bala promoteur yi amel yene mbeuri xam nga dañu dañu wax ne fotti ndab fotaati ndab mënul nek mhm. wa ki ñu yor xalisam te sen sen day jaay mhm. structure la bo xam ni bo boo ñëwee damay teug lamb mhm. xam nga lamb kenn du ko teug ñu naan la ñaata nga yor ci xalis wala ñaata nga def kon bo ñëwee ne damay teug lamb kon da lay ubbil bunt yi rek yaatalal la ndax promoteur yokku lay ñaan ñun ñaanal ñu bir promoteur mu dem ha ah. Matar mom ñu koy waat mu ñëw dugat combat yu mak yoo xam ne bu ko tëggee réussite Sénégal lay doon dama doon wax sànq dagg ma ñun bu ñu fi nekkee ñun collectif bi def ak ñeneen bépp sénégalais waxee dugg nga ci làmb dugal nga ci sa bopp woo ñu yaatal ñu ñu jàppale la ñu jàppale la bu baax jàpp ci ak ñu ci mën a jàppe pour mu dem parce que làmb moom bari xaalis saxu koo tëgg ñàkk xaalis saxu koo tëgg boo bari woon xaalis ba yor ay milliards yu baree baree bari boo ñëwee bëgg a tëgg làmb yow kese itam yàgg-yàgg ci jafe làmb da ngay ànd ak ay nit pour ñu def ko ku wedd rek laajal man mi joge ci journée barki démb dama tok bam yag ma joy xamne nit kenn mënulu sabab dara buñ la wut japp la dara du soti parce que lamb ji bu doxan tay bu doxé tay fi tollu lagro musa ndoy bi ni wax mais yeen journaliste yi ma ngi leen di nuyu yeen ko doxal parce que liggéey bi ci war lepp def ngeen ko yéen a ci réseau ku nek feneen ak feneen ak feneen mën ko deg waye jey mënul ku ci ne fu mu dem na la loxo wax la lambam wala leneen kon noonu nga xam ne journaliste ñu ngi koy jàppale promoteur bi CNG di ko jàppale promoteur bi noonu la ñu war a jàppalante ñun suñu biir bu ñu ñëwee ba dagg licence rek adhéré wu ci ñun rek dañ koy jàppale waaw. jéeloo sant Sénégalais yi sant ñëpp bàyyiwuma kenn baatu sant moom yaakaar naa muur na lu bari di sant sama mbokk yëpp bàyyiwuma kenn surtout sama mbokk promoteurs yi surtout staff Dieye production di sant mbër yi nga xam ne ñëpp. jël nañ seen licence nango beurel jey production ak ñinga xamne bëgg nañ beurel jey production ak ñeneen ñep yaakar na fi ñep ko bëgg beurel euh parce que suñ suñ la nee ñëpp ko bëgg beurel rek liñ fi tëgg ci lamb bari na té ñi mës a tëgg ñëpp yaakaar naa benn mbeur lañ fi mësa dégg guñ mu tëgg duñu xasar mais amul solo lool la aduna non kessa la mais ñaka xam limu waral da bari olof Njaay dana ne so baye ba mu yàgg bu yàggeetu di nga xam nit na dañ koy wax na ko da ngaa xamadi ñu yaakaar ne xamadi reewande du noonu nit ko xamul la ku xamul la ñuy wax xamadi kon ñu ngi waat ñëpp tey jégalu ñëpp lépp loo xam ne wax nañ ko ci interview yi rek sénégalais benn gis ci boppam dafa évoluer rek ñu ngi jégalu ay taalibe lañu ay taalibe murit lañu taalibe ñëpp lañu ñu ngi jégalu ñëpp waat ñaan ci ñëpp di wax liñ jëm ci suñu kanam yàlla na nekk réussir yéen nag ñu leen di ñaanal jàmm bu baax a baax a baax a baax di leen ñaanal parce que lii ngeen def yombul waaye nag seen liggéey la ñu ngi leen di ñaanal ba lii ngeen taxawal nii yàlla na nekk ay tele mu nekk leneen ak leneen te ngeen gis ci seen bopp bu baax parce que nit lu muy liggéey te gis ci boppam man de loolu laay sonal di wax cay sonn di nuyu Lirou nuyu Modou Mbacké da xam ne kenn la ci ñun jàpp naa ne képp koo xam ne nii gis nga ma rafet sax moom moo tax ma rafet gis nga fii ñu nekk nii di ko defee ci Modou Mbacké la ngeen baal ma bu baax kon maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu ay mbokkam xaadim ak ñeneen ñëpp maa ngi leen di nuyu vraiment nuyu sénégalais ma kenn vraiment kontaan naa ci yéen jërëjëf. dëgg la kon euh, Dieye ñun ñoo lay gërëm ñun waa Hann TV nga xam ne tey nangu nga ñëw dalal tey fii sa feef e ci waay mbokki internet yi loolu moo nekkoon euh, seen émission l'invité ñu àndoon ci ak euh, Dieye production bon di leen jox rendez-vous ci yeneen émission di leen wax nag bu leen fàtte bu ngeen duggee YouTube tapé Hann TV ngeen abonné. ay vidéo yi am solo mu ngi leen fay xaar ak ci page Facebook bu Hann TV jërë ngeen jëf